yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom fukkeelu njàngale mi ak benn bésub àtte bi nanu bamtu nettali yi weesu benn ndax yéesu matal na lépp lu yonent yi waxoon ci mbirum set bi yàlla dige waaw ñaar lan moo waral deewug yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar doon na sarax bi mat sëkk moom rek mooy ki amul bàkkaar ki mën a fay sunuy bàkkaar ngir nu mën a taxaw fa kanam yàlla ñett ndax seytaane dafa daan yàlla bi ñu daajee yéesu ci bant bi déedéet yàllaa ko tëraloon yéesu fay na sunuy bakaar bi mu deewee ñeent ndax ndekkiteel yéesu am na solo waaw ndaxte dëggal na ne yéesu mooy doomu yàlla mbind mi nee na doomu yàlla la ndaxte ndekkiteem nekk na finde ju ràññeeku ne moom la juróom lan la yeesu sant ay taalibeem ñu def ko war nañu doon ay seedeem te war nañu wër àddina ngir yëgle xabaar bu baax bi aju ci ay mbiram juróom benn lana leen yeesu dig wax na leen ne xel mu sell mi dina wàcc ci ñoom ngir jox leen doole bu ñu doone ay seedeem juróom ñaar bi yeesu dekkee ba mu am ñeent fukki fan yeesu yëg na kaw asamaan nan la malaaka ya wax taalibe ya bi yeesu yéegee kaw asamaan wax nañu leen ne yeesu dina dellu si ni ñu ko gisee muy dem asamaan mbind mu sell mi nee na ci màcc saar ñaar fukk ak juróom aaya fanweer ak benn ba aaya fanweer ak ñeent ak aaya ñeent fukk benn boo xamee ne doomu nit ki mu ngi ñëw ci ndamam ànd ak malaaka yépp booba dina falu ni buur toog ci jalam bu soloo ndam bu boobaa des na dajale xeet àddina yépp ci kanamam te dina leen xajale ni sàmm di xajalee xar yi ak béy yi mu teg xar ci ndeyjooram béy yi ci càmmoñam noonu buur bi dina wax ñi féete ndeyjoor ak si leen yéen ñi sama barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal di dalee ci njalbeenug àddina gannaaw loolu dina wax ñi ci càmmoñam sore leen ma yéen ñi alku te dem ci safara sudul fay si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakam bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi ba sub bi nettali bi mu ngi aju ci bésub atte bi mbind mu sell mi nee na yeesu dina dellu si ci àddina ni mu fi jógee woon dina ñëw ngir atte àddina si yéesu nekkee ci àddina wax na ay taalibeem mbir yu bare yu jëm ci mujj àddina si wax na leen ne ci jamono ji muy dellu si ci kaw suuf ay yënguyëngu yu bare dinañu ko jiitu dina am ay xeex yu bare ay yënguyëngu suuf ak xiif ci kaw suuf nit ñu bare dinañu jog ne yonent lañu tey tuddoo Yeesu Kirist dinañu dugal nit ñu bare ci yoon yu dëng ganaaw loolu jant bi ak weer wi dinañu lëndëm këruus te asamaan si dina yëngu noonu yéesu dina feeñ ci niir asamaan si ànd ak ay malaakaam yeesu dina yónni ay malaakaam ñu dajale taalibeem yépp yi nekk ci kaw suuf mbind mu sell mi nee na ci linjil boo xamee ne doomu nit ki mu ngi ñëw ci ndamam ànd ak malaaka yépp booba dina falu ni buur toog ci jalam bu solo ndam bu boobaa des na dajale xeet àddina yépp ci kanamam te dina leen xajale ni sàmm di xajalee xar yi ak béy yi mu teg xar yi ci ndeyjooram béy yi ci càmmoñam noonu buur bi dina wax ñi féete ndeyjoor agsi leen yéen ñi sama baay barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal di dalee ci njabeenuk àddina gannaaw loolu dina wax ñi ci càmmoñam sor leen ma yéen ñi alku te dem ci safara sudul fey si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakam yéesu bare na lu muy méngale ay taalibeem ak ay xar nee na mooy sàmm bu baax bi nee samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen jox dund gu jeex duñu sànk mukk te kenn du leen jëlee ci sama loxo mbind mu sell mi nee na gannaaw yàlla kenn xamul kañ la bésu àtte bi yeesu sax xamu ko ca bés ba lu nëbbu woon dina feeñ amul dara lu ump yàlla yéesu nee na bu ñu ragal doomu aadama ndaxte sunu yaram rekk lan mën a boom waaye nanu ragal yàlla ndaxte moom mën na noo tàbbil safara yeesu neen itam te maa ngi leen koy wax képp ku ma nangu ci kanamu nit ñi doomu nit ki dina la nangu ci kanamu malaakay yàlla yi waaye ku ma gàntu ci kanamu nit ñi dinañ la gàntu ci kanamu malaakay yàlla yi yeesu léeb na ngir joxe ay ci bésub atte ba mu ne nit ki dafa ji jiwu wu baax ci toolam bi muy nelaw ab noonam ñëw ji ca tool ba jëmb noonu tool ba sax dugub ak jëmb surga yi laaj ko ndax ñu bay jëmb bi waaye mënu leen ñu xaar ba góob jot bi góob jotee ñu xàjjale dugub ji ak jëmb bi ñu denc dugub ji jëmb bi ñu lakk ko yéesu tekkil na ay taalibeem léeb wi nee na moom mooy ki ji jiwu ju baax ji noonu seytaane ñëw ji jëmb bi bésu góob bi mooy bésu ate bi te surga yi ñooy malaaka yi malaaka yi dinañu xajale ñu jub ñi ak ñu dëng ñi ni jëmb ak dugub ñu jub ñi dinañu dugg ci nguuru yàlla ñu dëng ñi dinañu dem safara ci linjil yeesu nee na ni ñu dajalee jëmb ba lakk ko noonu lay nekkee bu àddina tukkee doomu nit ki dina yebal ay malakaam ñu jële ci nguuram lépp luy yóbbee nit bàkkaar ak ñiy def bàkkaar sànni leen ci safara foofa des nafa fa jooy te yeyu booba nag ñu jub ñi dinañu leer ni bi ci seen nguuru baay déglul bu baax yow mi am ay nopp am na beneen yoon yéesu ne war nañu jaar ci bunt bu xat bi nee na nit ñu bare dinañ ci jéem a jaar waaye ñu néew ñoo ciy xaj bu ñu xasee tëj bunt bi dina am ñuy jéem a dugg waaye duñ ko mën dinañu wax ne def nañu jëf yu baax yu bare ci turu yàlla bind nañu ci linjil waaye dina ne nee naa leen xawma fu ngeen bokk yéen ñëpp sore leen ma def ko bon yi foofa di ngeen jooy di yéyu bu ngeen gisee seeni maam Ibrahima Isaaxa Yankoba ak yonent yëpp ci nguuru yàlla te ñu dàq leen ci biti ay nit dinañ jóge penku ak soowu noor ak sud ñëw bokk lekk ci ñam yi yàlla di joxe ci nguuram Suleymaan wax na ci benn léebu nit ñu bare yaakaar nañu ne ñu ngi ci yoon wu jub bi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 am na ay laaj benn yan firnde ñooy feeñ balaa bésub atte bi dina am ay xeex ay yëngu-yëngu suuf si ak xiif ñaar kan mooy ñëw ngir atte àddina si yéesu mooy ñëw ak ay ngir atte àddina si ñett ñan ñooy xar yi ñooy taalibey yeesu yi ñooy ñi nangu yeesu ni seen musalkat ci kanamu nit ñi ñeent ñan ñooy bay yi ñooy ñi weddi ne yeesu mooy yoon wi te mooy musalkat bi juróom kan moo am sañ-sañu ma dund gu dul jeex fa yàlla wala tàbbil nu safara ba faw mooy yéesu doomu nit ki juróom benn kan moo xam kañ la bésub atte bi yàlla baay bi rek moo ko xam juróom ñaar ñan ñooy jëmb bi ci léew bi ñooy ñépp ñu ñu faxasul seeni bàkkaar ñooñu dinañu teqaliko ak yàlla ba faw juróom-ñett lu sax ay nit gëm ne yàlla dina leen ubbil bunt bi ndaxte def nañu ay jëf yu baax yu bare ci turu yàlla juróom-ñeent lu tax yàlla ne xamu leen ndaxte ci seen yoonu bopp lañu jéem a ñëwee ci yàlla nanguwuñu yeesu doomu yàlla ji ni sarax bi seeni bàkkaar fukk ndax mbind mu sell mi wax na ne sunuy jëf yu baax sunu ëppee suñuy jëf yu bon dinañu dem ci nguuru yàlla déedéet boo defee jëf yu baax yu bare te nga am benn bàkkaar rek yàlla du ko baal say jëf yu baax yépp mënuñu fay sa benn bàkkaar jëf yu baax mënul faxas bàkkaar yàlla du nangu li fekk fayoo say bakar yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla dafa jub te bésub atte ba yàlla dina xajale ñi jub ñi ak ñi bon yàlla dina musal ñi jub waaye dina yóbbu safara ñi bon gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla joxe na doomam yéesu mu dee ngir sunuy bàkkaar deewu yéesu fay na bakaaru képp ko nangu ni sa musalkat te bésu àtte ba dinañu mucc te dinañu bokk ci nguuru yàlla ba faaw yàlla xam na lépp dara umpul yàlla te bésub ate ba kenn ku nekk des na la àtte ci say xalaat ak say jëf yàlla rek moo xam kañ la bésub àtte ba yàlla bëggul bàkkaar ñi ñu bàyyul seen bakar maanaam ñi deretu yeesu faxasul seen bakar dinañu tàbbi safara ba faaw yàlla mooy borom doole yeesu dina wàcce ci niir yi ak ay malakaam ngir atte àddina si yeesu dina àndaale ak sañ-sañ bépp ci kaw suuf yàlla lu mu dige def ko yàlla dige na ab bésub atte te bés boobu dina am beneen yoon dinañ waxtaan ci ni yeesu nekkee sët bi yàlla dige